te di ñaanal xalifaam bi di Serigne Saliou ndigal mu yàgg fi lool te ànd ak di ñaanal tamit suñu gan gu tedd gu màgg gi di Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàgg lool te ànd ak euh, liggéeyal Serigne Touba mu ko di ñaanal mu Serigne mu Serigne Saliou mu yàgg fi lool waaw sëñ Ndong moom da day mel ni liggéey bi liggéey bu ñu miin la te it euh, sëñ Mbacké yu fay dafa delloo buum ca boy boy ga muy lan fii biñ fiy njëkk ñëw novembre 2006 la woon mel ni mooy tegum xeer bu njëkk jumaa jumaay Masaalikul Jinaan gii bañ bañ fiy ñëw sëñ Saliou moo ko moo yebaloon moom sëñ Mbacke yu fay ni ko boo demee ti Cheikh Béthio na nga ko wax benn yi nga xam ne moo jëm ci mbooloo mi euh, mu sas nañ ko ko moom moo ko fay def kon keroog ba ñu ñëwee euh, ndigal lool moo ñu moo ñu moo ñu fi indi woon ba ñuy defaat inauguration bi Euh, septembre 2019 bañ fi ñëwee tamit ànd ak euh, sëñ Saliou ndigal dem ci sëñ Mbacke yu fay daf ko ni ndigal loolu leen sëñ Saliou joxoon laaj tollanti tey jii nag ñuy teg xeer institut islamique bi mu ñëw doxal ay tànkam ñëw ba ci cant ga nikat lépp luñ ñu benn bernde jël na ko teg ci kaw ci loxo yi sëñ Saliou ndigal loolu nag muy sas wu rëy ba tax na liggéey bi it ba mu ba mu egsee ci la kuréel gi daal di Euh, ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ daal séddale waañ yi waañ bu ci ne am ay waañ yoo xam ni maanaam dañ koo dañ koo tënk ay zone nga xam ni yow da ngay da ngay daal di bot yeneen waañ fi ne nii noonu lañ ko tëralee ba tax na fi mu ne nii fii ngeen ñëw ni nag mooy waañu université nga xam ne dañoo seq liggéey bi ak yeneen waañ yu demee ni ko waañu Louga Ndar Kébémer waañu Grand Yoff waañu Bambey waa euh, waañu Wakaam maanaam bëri na waa ñooñu yëpp ñoo tegaloo ñëw fii ñu am nag mbett mbett kebin bu neex mooy suñu euh, mbokki taali bi murid di dañoo ñëw ni kat liggéey bi dañ koo fas yéene ànd ak yéen ñun ñoom bi ñu ñëwee tamit ñu xajal leen ci ndax booy seet fédération toogkat ak euh, daayira toogkat yëpp yu yoonu murid daanaka mën naa ni ñu ngi fi. di ñu ànd fii ci ndigalu sunu sëriñ sëriñ Saliou Thioune ndigal. waañ bi nag mooy waañ mooy ñaari waañ yu mag yi nga xam ni lépp ci ndigalu sëriñ mbàkk yu fay alaaju mbàkk yu fay mu jël lépp teg ci loxo sëriñ Saliou Thioune ndigal ñu ànd kook fédération daayira yi nekk fii yëpp war a doxal waañ bi waañ bi nag wax dëgg yàlla tuwaarkal la démb togg nañu reer tey ñi ngi nii di taal ay añ añ yi nag wax dëgg yàlla njort nañu ni dina ko mate sëkk wax dëgg yàlla daanaka fi muy waxee ak yow nii daanaka soo am na si ñoo xam ne sóor rek moo leen dese dina dina teel a pare incha allah njort nañu ni bu nu jullee ba pare ñëpp lañuy ñaan ñëpp toog añ bu neexee sëriñ Saliou. mu mel ni xewal yi moom si si nan ngeen ko tenkee ci wàllu xewal yi ay añ la ak ay reer wala. ñetti fan lay doon ñetti fan yoo xam ne bu nu xëyee dañuy joxe ndékki heure añ bu jotee dinañ joxe añ. heure reer bu jotee dinañ joxe reer. waaye di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Saliou ndigal mu yàgg fi lool te wér ñun ñooy waa Touba jant max waa daaray soxna yi ñu ñëw rek ànd ak sëñ saal mbég mi ak liggéey bi di ki sant bu baax sëriñ Touba nag. ndax ku gis bis bi ni demee xam ne sëriñ Touba kat nangu na ko ndax biñ tolloo ki julli fajar gis ngeen xéewal yi wàcc ànd ak ngan gi. kon xam nañ ni xéewal yi wàcc na mooy pajuk aajo gi ñuy sant baax ki sëñ Saliou Ndigal mi ngi jël liggéey bi dénk ko ko mu doxe ko ni mu ko doxee ànd kook jigéen ñi ak góor ñi ñëpp a ngi fi tey képp ku yaakaar Cheikh yaa ngi ci waañ wi tey ànd kook Serigne Saliou ci mbég nag akuk cant tey ñaan lool te wér ak Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou Serigne Cheikh mu yàgg fi lool te wér di bég lool di sant Serigne Saliou mel ni liggéey bi sori na ndax am na ñoo xam ne ñu ngi sóor tey yan palaa ngeen fi ngeen fi waajal tey waaw ngi toll ñoo ngi sóor def nañu ay ceebu ndabal def nañu ay laaxu araw def nañu ay ceebu ganaar dañ ay ceebu xale itam ñu ci kafe gi ñii ñu ngi ci meew mi ba tey ñoo ngi joxe ndékki itam jeexagul. waaw mu rëy si ñun lool ndax boo xoolee waañ bi ay ndaw rek fi nekk euh, kenn ku ci amul ku ci am 40 ans yu mat kon ñun mel ni euh, sëñ bi dimbale nañu waaw moo tax mbégte googu daal la ñuy dund. waaw ba fu ñu yem ak fu ñu yem xamuñu ko waaw moo tax daal lépp luñ ci def rek waaw des na. waaw te ñu ko doon def ba weer tamit man gëm naa ne mbooloo mi du tasaaroo ndax kenn ku si nekk da nga doon ñeewantal pour liggéeyal seexul xadim waaw ndax sëñ bi moom comme ni ko mag ñi di waxee liggéey bëgg koo liggéeyal am na waaye sëñ loolu moo jafe waaye ñun mel ni ñun bokk na ci tànn fi sëriñ bi waaw ndax ay ndaw yoo xamante ne suñu borom dimbale la ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa si jamono jii képp ku si yàlla dimbale ba nga bokk ñu ñi sélectionné rek neel alhamdulilah waaw jërëjëf jëriñ ñu laaj rek yëg-yëg bi ngeen am si sëriñ bi ñëw gën a sewaat ñu fii si Masaalikul Jinaan sëñ Xuddoos ñu siyaaraat rek di delloowaat euh, nuyo bi sëñ Muntaxa mi nga xam ni mooy borom taar beeg mbég mi di xam ni moom danoo delloowaat mbuum fa mu nekkoon rek waaw mbégte mi moom du jeex mukk barke sëñ Xadim moom nii rek lay demee saa su ne waaw ñun yittee sëñ bi rek ñu fi bàyyi heure bu ko soxlaa rek ak nam ko bëggee fa ko bëggee rek noonu lañ ko koy defalee waaw muy lii nag di suñu ci liggéey bi waaw di cër ci ñun wax dëgg yàlla ñu nangu ko te ànd ceeg mbég ak sawarte nag lool ànd ceeg suñu jëwrin Mbaye Wilane mu dénk ñu jëwrin Moussa Cissé ñaan ñu ànd ceeg jëwrin Cheikh Ndiaye ak mboolem rek waa fédération daayira parcelles yi. xalifa bi rek ñu ngi koy ñaanal mu yàgg jamono sëñ Mountakha waaw di aussi vraiment sëñ Mbackiyou Faye ah waaw réussir na lu lu Serigne tubaab bëggoon waxoon na dinaa si Ndakaaru samp fi loo xam ne nga lay def tey jii sous la conduite de de de de Serigne Mbackiyou waaw loolu réalisé nañ ko ñun ñi ñëpp sagu nañ ci ñun murit am na nu tiitër lislaam amaat na ndam barke sërin Bamba waaw loolu nag dama sa question dama si pëdoxlu rek neex naa tontu ndax lu ma xam la man maa ngi tudd Ameth Diop dëkk Thiès euh, yore waañ ba dëkk foofu ren jii waañ ni ñu ko tënkee danoo boole pôle yi maanaam waañ mu nekk pôle la ndax kuréel bi ñun suñu kuréel bi ay ay ay pôle la am na lu tolloog ñaar fukki waañ ak juróom-ñett kenn ku ne mën ngaa taal fu mu toll bu ñu doon taal ñaari junni man a loolu daf ñoo yomb kenn ku ne mën nga ko taal léegi ñu jël pôle bu nekk ñu boole kook ñeenti pol bii Thiès la ñu boole Sikaab Janatu Maxwa ak Ngéejaan mooy zone Mboro bii Abbas Marana moom mooy parcelle boole nañ kook euh, euh, yeneen yeneen yeneen pôle Euh, euh, pour ñu pour pour ñu def loolu waaw loolu nag ñun sunu taw féex la ndax ñun kat àdduna bi li muy rëy rëy rëy lislaam li muy rey rëy rëy lenn képp mun wér ni ni sunu borom moom moom moom naxundu si te digal na si ba waat si mooy la in sakartum la azidanakum nee na ku sant ma doole la ndolente yaa ngi nii waaw ndax démb de ñu àndoon ak Sëñ Tuubaa démb ñoo àndoon moom tey jii waaye xam nga ne yokku nañu tey ndaw yi riir nañu uti ko mag ñi riir nañu uti ko ku ne riir na daw daw uti ko waaw mi ngi mel ne ñu ngi taxaw ak kenn ci leeru sëriñ bi waaw mi ngi mel ni ñu ngi taxaw kenn ci leeru euh, Cheikh Béthio Thioune ñu fekk ko fii ci liggéey bi bokk si ñi nga xam ni euh, si njaboot gi la waaye bokk ci nga xam ñoo jiite liggéey fi ngeen ànd ko Serigne Saliou Thioune Ndigal nan ngeen amee taxawaay tey si bis bi ak yëg ak jëfati yëg jërëjëfati jër Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Saliou Ndigal Thioune yàlla na fi yàgg lool te wér ñu ngi siyaare di bég lool di ñaanal sëñ taxaa Mbacké mu yàgg fi lool te wér ndax moo nu boole Serigne Mountakha amuñu payam danoo yëg te yëg fierté bi jëwriñ mbàkk yu fay ñëwee àndandoog sëriñ Saaliw ndigal cuun liggéey bi ñu koy ñaanal fay moom mu yàgg fi lool te ak wér fi mu ne nii danoo nekk ci mbég moo xam ne mënuñu koo sax wax ndax ñun lii rek lañu bëgg ñun liggéeyal sëriñ Touba la ñu bëgg te nag ku la woo ci liggéeyub sëriñ Touba bi amoo payam sant nañu bu wér a wér a wér di ñaanal sëñ Muntaxa mi mu yàgg fi lool te ànd ak wér jërëjëf mu mel ni liggéey bi da ngeen koo tënk si ñetti fanu ngan li yëpp li fi sëñ bi nekk rek lépp da ngeen di rek waaw waaw ñu ngi fi fekk sëriñ bee ngi fi rek ñu ngi teg sunu mala yi ñu lay saarat baax ñu fekk leen ci liggéey bi dafa mel ni liggéey bi sori na nan ngeen amee yëg-yëg tey si si bis bi ànd ak sëriñ Saliou ci ci liggéey bi nga xam ne sëñ Mbacke da ko yeesalaat ci moom jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke ñoo ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ seex mu sëriñ Saliou mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Saliou Thioune mu yàgg fi lool te ànd ak waaw dañuy santaat bu baax sëriñ Saliou Mbacké ci lii nga xam ne moom nga ma laaj ci li nga xam ne Mbacké wu fay moom jox nañu ko e, ñu nit ñu jëfee ko xam ne yees waajal nañu suñuy nag ak suñuy ginaar ak suñuy bernde nga xam ne ñun loolee nga xam ne moom lañu ñu Serigne Saliou cërale woon ci àdduna muy ab cant te ab cant kat bernde bernde kat ren di togg ay ñam yu neex te bari joxe ko amul xaj ak seen mu mel ni démb ba tey ña nga ca te ni ko sunu jëwriñ waxee rek soxna maam benn